dal leen jàmm seen boutique Lo Déco Lo Déco nekk benn boutique boo xamante ni c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal ma rideau yi façon couleur bu nekk am na fi lii daal Lo Déco rek la am Lo Déco am na prix en gros waaye itam am na détail fekk dëkko capital ku ci siisu da fekk dëkko capital su kombine selo ñëpp dañuy laajte namuñu dara fépp lañuy wàcce ñun dañu nice ak suñuy vibes tegal fi sa loxo ndax fi mooy capital eh. abe nga ni déedéet bu bul xalaat bul xalaat mu jén man yow laa bëgg seytaane seede na loolu laa wax xoolal da ñëw waaw da ñëw ñëwal boo ñëwee ñu def yi fi mag yow comme yow wooroo tey man wóoruma ñëwal dinañ mën a jàmm suñu daqaar te xoolal ma wax nga leen ne gis nga ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee yow yaa génn ci loxo dof bii laay di nga xam ne maag moom du ñu benn yëfi mag lañ koy def xoolal te am na kaab mën a bëgg a wax de ah ah yow say rab loolu koy dundal dooma nax nag da ngay ñëw yow lu romb kaa day am laa raf sama digganteeg yow rek tey du yomb ñëwal. maa ngi lay xaar. sama doom ji rek doo ko réccu ma yow tam man yow man moom xanaa xamoo ma <laughs> di nga xam ne wute na wallaay maa ngi lay xaar ñëwal. Baba Ndiaye yaa fàtt dégg Ndakaaru dégguma dégguma moom nu ma fàtt dégg Ndakaaru tëmbal la top 5 pënd bi wuure. ndip moom moo ci gën a kon moom li ma ko bindal. ak li mu woy c'est diamétralement opposé pënd bi wuree mu naan pënd bi jóg kan kan kinaara dagg sa bun yóbbaale dandangara tan tan dandangara tan kan kan kinaara riim dafa yomb loolu rek ñu ne fi ay pënd bi wuree gi kan kan kinaara dagg sa bun yóbbaale dandangara tan tan dandangara tan ama suul ni woor ak wax ju bari ji mënta ne Saalum. rakku jàmm. ça va ma ma toog. comment vas-tu. ah fu ñu la yaa ngi ci ay affaire. ah. ma ne fu ñu la yaa ngi ci ay affaire. waaw moo gën a moo a na maa ngi toll xam naa nag maa ngi toll fële dégg sa làmmiñ bi. ah damaa bëgg a wax di lekk xanaa. de lekk waaye da sawar ah, maa tay sawar ah. maa tay sawar. sama kuddu jàmm la ràcc. ça va. ça va bien. et les activités. xaar ma ma am. teel. lu maa la may. yaa may dix mille. waaw. boo da saraxe wala. saraxe jëm fa. saraxe wu man. Ah. ma la koo yéene rek may la ko. jërëjëf yàlla la yokk. amiin. yàlla na mel ni soqe Moustapha Maroon koy Moustapha Maroon. Moustapha moom lañ njëkk a suul si arméeru tuubaay mooy arméer yi ñu tëj noonu yi fees. moom lañ fa njëkk a denc moo ko soqi. waa kii du biisu sama biisu tëri. bébé Njulli. na def ci loo ne. yaa ngi si jàmm. ça va. mais biisu yaa gën di jekk. yow amoo moo de. bu ma gis dama am jom nag de. xanaa hmm. xamoon ne man yaa dee sama xol man yaa dee sama xol quoi. d'accord. waaw léegi nag yow yaa ngi sama jong bi yaa tax ma jong ko di. nga ni ma waxawaay yow laa ko tuddee loolu moom foog ma def ci dara. kon si dara mu gaaw foog nga si dara mu gaaw. loo ma def ci. xoolal rek loo neex rek. yow jaaxal nga ma kon yow li nga ma doon doxaan yëpp bu fekk na jongo goo. non man jong naa ko sax mais lii finition bi la rek. finition waaw ah, damaa gaañoon sama bopp. yow. waaw ah. xaw ma boo wéree fuñ jëm. xanaa toj dëkk bi su may wër di toj dëkk bi seetaan ma rek. maa ngi dem capital. ah capital nga dem ah waaw def noonu yow yow xam naa yow su ma wéree yow si yow laa nar a sukkee kaw même rek yow am som rek. naa ne mag la yar yow. ah boo dul mag da ngay jege ay mag. dëgg la gëj naa gis mbaay. mbaay. Hmm. gëj naa koo gis nag man moom fi mu ne nii sama bopp rek. Eh, du noon nag as as mbokk ñaar koy dox dee ko seeti nag. Hmm. yow lu tee nga dem fa da nga koo nam. kan la yow. déet ma dama taseeg moom rek lu yàggul moo tax ma lay wax loolu di. Ah, comme nañu ko gis na nga seeti ko. buñ ndogee dinaa fa bu ñu. ndogoo ba pare. te ngaa dem léegi rek. ah waay yow mii. yow 10 000 bi rek doxantoo mën nga gis loo jënd. jëndu ma dara dama koy denc ba ngoon mën naa fee jënd ko. gis nga xaalis nag kenn du ko denc boo ko amee da nga koy utiliser. Ah, li ne fii bu wàccul li ne fii du mun a ñëw. non dama koy dajale. bu demee ba fees ma xam ne maa ko moom gëj ngaa dem gëj nga fooy yooyu day léegi yooyu da nga cee xawal kii de non fooy moom koor gee tax du ma faweeg yooyu mm, déedéet dee ko def nag li la nit ñi xamee moom bu ko bàyyi waaw mm-hmm. ah, juga nga dem fooy fooy wu a foo de ngoon laay fooy as su ma ndogee bala ñoo naafi ma ne nga jóg fooy laa mbaa nga delloo sama 10 000 jugal affaire mooy lan chantage moom ma ko gisee noo may mayee 10 000 naan ma ma ne nga jóg laa wax loolu ndigal la te dama la wax dama la dama la war a wax nga def jugal boo yorul wéroo booy tiit di dee. jëpp ndigal rek. comme ça oh. bàyyi sa ñoqati bi ngay def nii. fii ku fi ñoqati amut. fii ku ne bosam lekk na yëreem. maa dem te ñëw. dama. maa ngi xool. nii la. rek. capital mooy e capital yeah jongoma man damay woor sax di gën a beeli waa lii lan la tamit xale bu xees baa ngi nii zéro kento xees naturel ay kuy takk yóbbu kuy takk ma ceebal ndeyam ceebu jën penda mbay bëgg a suul kaani bu moo ko am tuuti jumbo koko eh, national aka yaru Fapore si jàmm maa ah, man de dégg naa la ngay woy de xam naa ni kontaan nga nag maam kan laa ñee ah hmm. papa jeg yaay ji nga xam ne seen doom moo la nar a takk yow dangaa yaru di te xam naa ne boo ko ceebalee moom ak lii lii war a dem ci ceeb yëpp suul ak bëggaj hmm. ah loolu moom macha allah ay yow tam man man weesu naa yooyu man mag laa. kon gëm naa la. mais yaa ngi maa sant. alhamdulilah. waaw mais tey moom da ngay sañse nga de da ngay génn xanaa. waa dama bëggoon dem HLM jënd kol mais xam naa damay bàyyi ba suba. lu la jaral lool bàyyi ba suba. ah, ah yow déggoo li waa daara ji wax. nee na looy def def ko. lu la ci fekk muy noonu. ah muy noonu. ah waa du bëgg toog nii di xaar ah, nan la nuñ koy waye bul xaar looy def def ko. Ah, lu la ci fekk mooy loolu. ah lu la kon nag jugal nga dem asalem balaa marché di laal li yow xam naa xamoo période bi ñu toll nii. ah yow defal ndànk ma wax la rek yow sama doom nga sama xarit nga am jëlal li <laughs> kooku lan la lu xew. dama mës a may 1000 francs ba may taalal 10 waaye bu jamono neexee ma yëkkat sama 10 000 yeneen loxo léegi lan moo ci am ay reetaan. rek man maa la ko may ci xol bu sedd guy am demal nga jënd say kol du ne nga ay kol nga bëggoon jëndi ah, mag nag man néew ma ci yooyu ngeen nekk nii am teel ma jëlal. ma demal marse nga jëndi sa kol yooyu lii mën nga ci am kol ak leneen ak leneen. lan la. jërëjëf bëri na de. ah eh, man xeeb naa ko de. yow sama doom nga te eh, ni nga dëkkee ci man rek kon war naa la mën a jox lu ëpp loolu. waaye eh. <laughs> di ngeen xam ne seen bàyyi sama ko may ma ma ñëw. man Basir jaaxal na ma quoi ko am na ni kenn du ñëw gàlle ba fekk ko fa. day wër rek xaaral ma woo ko ba xam fu mu toll nii allo booy non bu dem ay waa booy dépp booba tey maa ngi sa gaale toog di la xaar ñëw ñu dem yow tamit non non ma dafa yeneen yu ma war a business yi ñëw ñu dem tamit deux minutes boo ñëwu damay dem sama yoon baax na waaw ok nii day ñëw sa gaal la xaar la fekk yow jàngu université yëpp tëj nañ ko kon yow fan nga jëm topp marsa bi dox mel ni bi juuti gaal boo xam kenn du toog kenn du toog doo fekk kenn ñëpp ay dox Babs <laughs> Bachir toog laa yee toogoo de. maa ni ma toog yow taxaw man maa ngi toog de. eh toog seen kër laa wax ah. wax naa la ba taay ñu suñu kër ma faa juddoo rek mais man capital laa dëkk. capital fan ah, tax capital ku jug rek def ko Rida Mayga. te capital lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi fi. ah yow lool nga gis. Ah, loolooy li am. koy seet ni Bachir. waaw. newu fi dafa génn. mais woo naa ko nee na mu ngi ñëw dafa defoon marché. léegi eh, da nga bëgg a toog xaar ko. maa fekk ma toog. jugal nga jugal nga dem. fan laa jëm. nga génn kër gi. père ba boo wooree ba bëccëg rek bu ñëwee ngay met métti sa lii nga sol mais ni koko laay laay. voilà booy wax bu ma laal sa loxo man la. Babacar jugal. père wax naa ba taay di jëb bopp sa la ba sama tur bi yàq da yaru ñu bëgg la père tamit. kan moo yaru ñu bëgg ma man waa jugal. fan laa jug jëm. nga génn kër gi walaay déggoo li may wax. père da nga meloon yow tamit yaru ñu bëgg la. kan moo yaru ñu bëgg ma waa jugal ma yaru ñu bëgg ma man nga xam maa yaru ma ñu bëgg ma man. léegi kon Basir ne ko maa ko. Basir yow xam nga ma ne la Basir Babacar génnal. kër gi papa Asa ko moom. yow joxal ngay doxal dafa papa Asa nga naan ma papa moom kër gi doxal la ñuy doon dox bu tàlli amoo kër mënoo toog Basir néew fi rek chaque chaque ñëw. imbécile nee ne mu ne Bachir am amoo kër capital fii mooy capital capital ah. fii mooy capital ah sama doom ji. waa Fodé. noo def maa ngi fi. baa kenn sonal la ci yoon bi rek. non non non pas ñu dem ci kaw moo gën a calme fii fii léeg-léeg bureau yooyu dalay sonal. Ah. nañ dem ci kaw. waaw Fodé ci kaw lu fay def. ah ci kaw moo gën a feex xam nga fii moom mooy loolu nañ dem ci kaw rek ñu waxtaan. Hmm. Ah, entre papa ak doom kañ. waxtaan ci àdduna rek ak ni dëkk bi ni mu demee nii. d'accord ñi bëgg a dem ñi bëgg a wàcc ñi bëgg a toog nañ ko waxtaanee ci kaw. <laughs> Eh, nekkal à l'aise. tey nii la Bijou dañaa yaru nag waaw man wax ma loolu Bijou loolu sa bët yi nii. c'est des lentilles. c'est des. lentilles. noo koy waxee nii di c'est des lentilles waxaata. ma Bijou maanaam Bijou nag ñu waxtaan. ñaari mag bu ñu wéetee ba caabi seen néeg ah nag jàmm seen dakaar moom loolu day yomb am na loo xam ne jarul sa waaj nag. biir xam nga li ma war a bëgg dafa am loo xam ne bu seddee soof yow wóoroo wóoru ma fu ñu laqatu jàmm suñu Dakar kay yomb na ma lii daal dara newu ci def ko pare faxasu jàll jëm dem ci leneen ah nañ ko neexal ragaloo loolu yow yow añoo nga hmm? je vais mii mhm. ay ca nag lekk ma pas faux de pas faux de eh nalaw rek ma jula yow kañ nga jóge asile ma di ma yee yeewu baadoola yi waa kii moom man beneen pas faux de la ban HLM ku demoon HLM yow yaa ma tàggu léegi da ngay dem jënd école ma yëkkat dix mille may la man mii nga may dix yaa may sosal de kooku xoolal bu ma fonto ma dama xale di wax maa la fekk ci saal bi léegi jox la 10 nga ne ma ay ay joxuma la 10 000. yow man dama gis 10 000 kañ nga ma jox 10 000 yow kooku bàyyi sa fen yi. Pape Fodé bu ma waxaat da ngay fen. boo feneen duñu la ko wax yow génne 10 000 bi nga naan ma ay ay ay kii. joxuma la bu dee maa yor 10 000 joxuma la. yow joxuma 10 000 yow joxuma la yow eh xoolal ma sa morom de dégg nga li ma la wax. génne 10 000 bi laa la wax. naax sa naaxu ba ba pare di ma bëgg a ray ak 10 000. joxuma 10 ma. kooku mën naa la jox 10 000 léegi ngay weddi li ma wax. gisuma gisuma ko joxuma la sax su ma ko yoree. joxuma 10 000 yow. joxuma la eh eh eh bi lan la ah man kii dafa ma bëgg a yab léegi xanaa waaye yow kii man may ko dix mille léegi mu mu naa ma joxuma ko mi tàgguma dem asalem oh, joxal kii dix la mag kenn du ko tooñ ah. nit da ngay yaru amee teggin xam sa mu baay kii li ko sa baay mage bariwul jox ko xaalisam bu dee moo mag sax papa yaa fekkee fu ma Pape Fodé joxee dix mille fekkewu ma mais mag mu tol nii bu nee la yawa yawa jox ko dix mille jox ñu xaalis bi yéen xaw ma lan mooy problème bi mais yéen ñu xees ni yàpp ngeen ñu ñun ñu ñuul ñi fan yi trop léegi nag suñuy dix mille ngeen di dugg. jox xaalis kon dadul lool a man mbaax laa doon def rek. yéen ba ma joxaale leen demal fooy. joxaale kan. yow mi jox naa dix mille léegi. da ngay fen. kan mooy fen. waxoo dëgg kon li ngay kii da nga koy sosal bu dee jox nga ma dix mille da ngay sosal. kii xoolal ma fontoo. yow maa toog fi léegi laaj la ana ba yëkkat 10 jox la yëkkat 10 000 jox ko ngeen may fontoo nii mooy lan. yow mënoo rek la ngay mel ni los de mor la am nii. na. ah yow kan nga fi jox 10 yow génnal dix mille yi. gis nga naaxoo fi bay wër di fenal nit ñi joxe woo fi dix mille. léegi dama wax nga yëngal ay tànk yéen ñaañu ma ne da ngeen di génne dix mille laa bu leen ma fontoo ah génnal dix bi. xoolal mu eh, eh xoolal xoolal bàyyi ma eh, bàyyi ma eh, bàyyi ma eh ma génnal xoolal génnal dix bi laa wax. rek leel de. eh xoolal yow du ma sa morom yow dégg nga li ma dégg nga ay dix mille de. ah génnal dix ma bu ma fi jiñ damay jiñaate. ndànk xeexu koor ma dinaat dix mille bu ma dinaat dix mille wax laa bëgg mu yàpp daf ndànk la hawla wala xawata illa billahi ali al azim auzubillahi min aseytaani rajim dogal fii foo foo wol waa sa affaire ëmma seen yi ngay def toog ci télé yi naan lii dafa ñaaw procureur laa koy wax lii dafa ñaaw moytul yooyu fii kenn jëlu fi sa xaalis joxo fi kenn xaalis bu la koor gi jàpp du yaa wax ni ba xale bi di ma yab man ma as man loolu man mun naa koo mun naa koo naa ah maa la jox fii dix mille léegi ñu wax waxi waxi mbaay nga toog fii di ma wax ay naan ay bàyyi yëpp amoon seen yàlla ma tiim xam na ne joxoo ma dix mille yàlla laa la waatal as yàq nañ la man waxuma loolu as non man man mënu ma dofee noonu bisu maa ko entré bisu teg na ma tànk ma teg ko tànk euh, ujje kuure def nga loo xamul de ah. wóor na yàlla tooñ nga ma sama bisu nga wax li nga yor defoo ko ci li mu yor. nga ne la. seen jumtuwaay yi ma ne mbaa dëppalewu leen ko. as man sama looy nga xam man waxuma ko. man lool xanaa loolu mënul nekk gént. man ko moo ma yee waaye man ah man de man tey jaaxle naa kon. yow da nga doon gént foo man maa ngi foofu. ah maa ngi dem foofu. sama biisu biisu rek ah man de jot naa ko teg loxo ci ndigg de man man daal man lool xaw ma lii nu mu nga xam ne tegoo dara ci gént bu doon wax dëgg du baay bàyyi ba nga nelaw mi doog a ñëw ci yow ay po bi am toog ci gi naan dama doon gént. waaw lii mën na nekk gént ni tas nañ sama yaakaar waaye ma ne di kañ la ma daan dikkal saman man mag ni man li nga xam ne imbécile bi lañ ko xame gént sax ah bisu de war Be my capital. Yeah. Capital. Be my capital. da fekk da ko capital ku ci siisu da fekk da ko capital su ko laajte na moo ñu dara fépp la ñuy wàcce ñun dañu nice ak suñuy vibes tegal fi sa loxo ndax fi mooy capital eh.